waa gars yi asalaamaaleykum campagne bi nag tey la tàmbali officiellement euh, dans treize minutes euh, treize minutes yi passé ca la campagne bi tàmbali fukki minutes ak ñett ci ginnaaw euh, ma bëgg a leen alerter alerte générale et alerte nationale candidats yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yéen ñëpp ngeen dem campagne ci jàmm ak salaam ngeen ñibbi ci jàmm ak salaam ñu dem élection ci jàmm ak salaam kuy gañe gañe mais dama bëgg a lancer seen attention ci dara Macky Sall ay ndëgg sërëx yu bari la teg bokk na ci ndëgg sërëx yooyu jël kenn ci yenn set bakkan candidat yi soyez vigilant Macky veut un des candidats bàyyi leen loolu xel ñun suñu candidat yi moom dañ leen di boof ni ay nen pour mu laal ci kenn il faut mu faat ñu ñun ñëpp mais yéen ñi ci des bàyyi leen xel ne Macky Sall jox na Moussa Fall ordre te man duma waxantu donc kenn ci yéen bu mënee jël bakkanam pour poussaat élection yi Macky Sall mi ngi ci mi ngi ci dox boobu aussi donc bàyyi leen xel ne yéen ñëpp yéen ñëpp bàyyi leen xel ne seen bakkan mi ngi ci xottu gerte candidat yi laay waxal candidat yi yéen ñëpp seen bakkan mi ngi ci xottu gerte Macky ba gën a jël bakkanu benn candidat pour mën a randal élection yi te loolu tamit fi ma ko teg feneen dama koy teg ci article vingt neuf bu constitution bi ma liiral leen li mu wax léegi dama wax ak sama gars yi liñ ma ko bindalee ñu faram-pàccil ma ko ak suñu technicien yi ñu ne ma Ousmane j'ai finalement obtenu le texte qui couvre le cas du décès d'un candidat avant les élections Macky Sall a donc introduit au mois de juin une modification de l'article 29 à cette fin. Cette manœuvre est à presque six mois de la convocation du corps, ne qui me semble est clair, c'est que sa, sa volonté de repousser les élections ne date pas d'aujourd'hui. Il donc prit soin de préparer le terrain juridique à l'avance en créant des scénarios sur lesquels se baser pour obtenir ce qu'il veut. Pendant que les gens débattent sur le conseiller constitutionnel va valider ou rejettera le texte issu au dialogue on peut nous annoncer la mort d'un candidat à la, la question du report déglu leen article vingt-neuf ñëw ci mu ne projet d'amendement du projet de révision de l'article vingt-neuf de la constitution expose des motifs tenant compte du projet d'amendement léegi boo leen bàyyee mi ngi wax ci projet de loi boobu mu ne dans ce cas mu ne toutefois en cas de décès d'un candidat le dépôt de nouvelle candidatures est possible et tout moment jusqu'à la veille du scrutin mu ne bu benn nit dee ci candidat yi mën nañu dugalaat beneen candidat ba veillu scrutin bi mu ne dans ce cas les élections seront reportées à une nouvelle date par le conseiller constitutionnel Macky Sall moo bind lii ci article vingt neuf mi ngi nii donc yéen ñëpp soyez vigilants candidats yi soyez vigilants changer na constitution bi pour en cas bu jëlee bakkanu benn candidat nee na mën nañu puusaat élection yi te boo leen xoolee Sénégal ni muy demee Macky Sall xam na ne ñàkk na élection yi xam na loolu il sait qu'il a perdu les élections Macky a perdu la tête donc je parle aux Sénégalais d'être très vigilants ñu dem ci élection yi jàmm ak salaam ñu ñëwaat jàmm ak salaam ñu voté jàmm ak salaam ñu duma ko jële ko palais de la république incha allah jëlaat suñu réew mi teg ko ci yoon ñu ne soit des signatures élues représentant huit pour cent des membres de l'Assemblée nationale ou vingt pour cent des chefs d'exécutif territorial une électeur ne peut pas parrainer d'un candidat mi ngi nii boo leen xoolee ñaari yëpp ci la ko dugal ci article vingt-neuf Macky Sall dugal na ci ndëgg sërëx mu ne pour en bu benn candidat dee donc candidat yi sàmm leen seeni bakkan sàmm leen seeni cër Macky Sall nee kenn ci yen bu faatoo jeex na bu leen dox yéen dong ut leen ay garde yu doy soo leen amul ay garde ngeen bañ a waaye moytu leen donc gars yi campagne bi démarré na ñun suñu liggéey tàmbali na nañu dem ñu liggéey sur le terrain les patriotes jël leen spécimen ngeen fëgg buntu yi kenn ku ci nekk ci yéen c'est Bassirou Diomaye fay kenn ku nekk ci yéen vous représentez le projet kenn ku nekk ci yéen Sénégal moo leen tax a jóg dégg ngeen tey bi Bassirou Diomaye fay présenté programme am san yaram daw na da ngay jooy sax billaay lazim boo déggee programme bi nga xam ne lii mooy un vrai programme pour sukkali Sénégal donc gars yi loolu laa newoon ma bàyyi ba suuf sedd ba ñëpp ne tek di déglu ma génnee message bi ma lancé leen ko wa rabbana atina fi dunia alxasana wa fi l axirati xasana wa xina azab annar wa rabbana la tuzi qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab donc ma ñaan yàlla mu sàmm ñu fii mu sàmm ñu yowmal qiyam te lu gën ci ñun fii mu defal ñu ko te lu gën ci ñële ci ci fële mu defal ñu ko voilà gars yi nañu dem campagne jàmm ak salaam maa ngi ñaanal candidat yi yëpp yàlla wéral seen cër ngeen dem kan campagne ci jàmm ñibbisi si jàmm incha allahu rabbi que le meilleur gagne waa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu.